Mouhamadou Moustapha Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di bu baax a baax. di la dalal di fàttali suñu auditeur ni ñoo ngi koy euh, moom mooy directeur de la formation et de la communication ca ministère de l' éducation nationale euh, jamono ji euh, ñu mën a wax ne jàng bi tàmbali na ndax enseignants yi ubbi nañu mu des ndaw yi nga xam ne feek fan dinañ ubbi ñoom it tey lan mooy protocole sanitaire bi tutelle bi mettre en place ngir njàng mi ñu def ko ci dal ci xel mu dal. waaw euh, xam nga euh, président mooy dogal ubbite école ak euh, décret boo xam daf ko jël. Mm. nees le bi ci la jàngalekat yi ak personnel administratif bi dellu ci école yi. Mm-hmm. le douze novembre ci la élèves yi di dellu ci l'école yi. waaw mm-hmm. ah, mu tombé jamono joo xam ne nag jamono ju xaw a doy waar la ndax mbas mi bu coronavirus bi ñu ngi fi ba tey. Mm-hmm. ba tax na. Euh, ministre de l'éducation nationale taala jël disposition yëpp en relation avec ses services en relation ak yeneen ministère ak surtout ministère de la santé ñu def protocole sanitaire bu bees protocole boobu nag li mu li mu wax mooy nañ continuer takk masque yi euh, ci ci l'école bi mhm. nañu def euh, di raxas loxo yi ci l'école bi mhm. donc dañuy éviter aussi dañu def aussi distanciation physique ministère bi jënd comme jënd na matériel bi yëpp dugal ci école yi. Mhm. maintenant nag mu des distanciation physique maanaam daal ñu sorante ci wàllu sorante bi nag xam nga bi yoon. Mhm. nañ ko defee woon du a nekk def ay classe de vingt boo xam ne ñaar loolu mënul nekk ndax amuñu classe yu doy amuñu aussi ay jàngalekat yu doy pour loolu te it ñeenti millions élèves ñooy ñëw ci ci l'école donc li ñu ciy def mooy répartir classe yi. ci équitablement. Mhm. Euh, fexe daal fu mën a nekk euh, deux huit heures par deux huit heures par deux en ce temps yi aussi ñu seet nañ koy nañ koy sorante ba euh, xale yi dañu def contact maintenant nag boo ko méngalee ak tey di xew. Mhm. nga xam ne boo demee ci kaar yi nit ñaa ngi del boo demee ci ci ci marché yi tout ça nit ñaa ngi seet del nit ñaa ngi def ay màggal ñu def ay gàmmu. je pense que école pour war naa mën a dox parce que distanciation physique bi malgré que e, cas yeeg tout ça. Mhm. te cas yaa ngi baissé. donc te moo tax protocole bi aussi jël na en compte que bi wàññeeku na bu baax Sénégal. loolu mhm. euh, aussi jël na ko en en compte. Mhm. donc incha allah bu ñu disposition yi ci war daal. li ci yi ci ci récréation yi parce que. maman yooyu ci lañuy fubal ci lañuy bëre ci lañuy daxante donc mooy leen surveiller ba duñu def ay de contact tey ji euh, ci ban anam la ñu mën a amee distanciation bi ndax gis nañu euh, donte xale yi euh, ñoo ngi def double fixe ñi ñëw tey ñi ñëw suba teewul classe yi ba tey am na ay nit ndax loolu mën naa yemb vu que atum ren quatre millions ndaw lañ wax ne ñoom ñooy jàngi. waaw xam nga classe double flux ak ak multigrade mooy ñi ñi eh, ñi ñëw suba ñi xale yi ñëw suba. Mhm. ñi ñëw ngoon. Mhm. wala ñi ñëw tey ñëw ëllëg yooyu yëpp liy gérer la mais li ci am solo même muy double flux muy multigrade muy classe normale li am solo daal mooy yow daal dispositif xale yi. Mhm. ci façon boo xamante ni bii. évidemment du ñu du ñu du ñu du ñu takkante trop. ba mën a wàllante loolu moom moo ci ëpp solo. li nag mooy def surveillance bi au niveau de la récréation. li ni mel ndax euh, nguur euh, day euh, topp ci ginnaaw école yi jàppale leen wala école bu nekk mooy chargé wu ci stratégie bi muy def ba mën a amal mbir yi ci respect des mesures barrières. waaw li nga xamante ne mooy wala matériel bi moom ministère jëndu na ko ba jox leen ko. Mhm. li ci des nag directeur d'école yi ak principaux yi ak ñuy wax les proviseurs ñoom. en, en relation avec seen administration. Mm -hmm. ak mhm. euh, donc les collèges les équipes pédagogiques ñoom ñooy taxaw nag pour jël ay mesures pour surveiller euh, pour pour waxaan waxanteeg xale yi parce que xale aussi xale rek la waxanteeg xale yi ba li ñu bëgg ci mesure barrière ñu ñu am ko. Mhm. Euh, gis nañu euh, tamit euh, ne apaisement climat social doon na li ngeen waxtaanee bu yàggul ndax tey am na anam gi ngeen tëral pour wax ne nii bu ngeen ko defee tey duñu dégg ay rëkk-rëkk ci njàng mi. waaw ñu nag vraiment G7 ñu ngi waxtaan bu baax. Mhm. ministre éducation ñu di recevoir. Mhm. seen point yi aussi ñu ci ëpp solo ci wàllu formation nga xam ni. Euh, tey ji boo demee CELAS bu Thiès boo demee ci CRFP boo demee FASTEF boo demee INSEP ñëpp ñu ngi leen di formé. Mhm. Euh, tey ji aussi boo jëlee wàllu indemnité indemnité de logement bi nekk président waxe woon jëlee na ko soixante mille francs ci fukki junni ak ñaar. Mhm. yóbbu ko ci ñaar fukki junni loolu aussi lu am solo la. Mhm. mu des aussi wàllu lenteur seen dossier yi euh, muy validation muy intégration muy reclassement muy rappel yëpp. dëgg yàlla eh, gën nañoo gouvernement bi gën naa baral loxoom gën naa baral ay tànkam ba nga xam ni enseignants yu bëri weer bu nekk eh, ñu gis eh, seen activité mhm. am nag ay points yu difficile maanaam système de rémunération bi mhm. nga xam ni commencé nañ ko waxtaane waaye nag du du nekk la fa nekk point boo xam ni neexul neexul lijjanti parce que yokk ay salaire autour de autour de deux cent trois cent cinq cent mille loolu moom mënagul a nekk donc mais malgré cela ñu li ci def nag mooy ku leen ni réew mi fi àdduna bi dafa metti ndax tey croissance bi na ndax feebar bi euh, donc cousin yaa ngi def plan de relance donc nee nañu te mbas maa ngi kon nañ ñëpp rek si soit ci ay mot d'ordre ba ñu génn euh, bi ku nekk mën a tegal yenn façon yi ak yenn méthode xeex. Mhm. kañ la ñuy lii di monitoring yi nga xam ne gisoon nañ ko fi bu yàggul. non bala yàgg incha allah parce que monitoring moom en fait sax ci ci revendication monitoring dafa nekk moment boo xam ne juste rek dañuy def le point mais li ëpp solo ci liggéey bi. Mhm. service yi ñoo koy def. parce que bu ko service defee bu demee toog ci bi aussi day fekk dara rek la mais ñoom xam nañu ne ku ci ne ministère yi leen seex yëpp di finance fonction publique. di éducation nationale ku nekk yaa ngi chaque jour def ay jéego pour régler seen problème mhm. nga doon tamit coordonnateur coalition Macky 2012 tey ban jàngat nga am ci gouvernement bu yees bi fi nekk. waaw xam nga xel mën na nangu président de la république bu mhm. fekkente ne bi dafa toog jamono euh, feebar bi ñëw euh, ralentir suñuy suñu activité économique euh, appauvrir ay ay nit. Mhm. yàq liggéeyu nit. Euh, feebar bi aussi euh, ñu jógee ci inondation te ñu war a relancer économie bi te boo bëggee relancer économie. Mhm. du ànd ak li euh, ñu nekk ci mbedd mi di xeex guddee bëccëg. parce que investisseurs yi nga xam ne yow seen alal di ko dugal ci réew mi réew moo xam ne am na jàmm am na stabilité lañ koy dugal. Mhm. donc moo tax xam naa ni certainement mu ubbeeku ci opposition bi pour que réew mi mën a dal. bu réew mi talee mu mën nag relancer économie bi parce que loolu moo ëpp solo. Mhm. waaye bu fekkee ne mën nañu réew mi à chaque fois rek ñu bëgg a nekk ci contexte élection parce que simplement am nañu kontaanul di organiser nit ñi leen daal di dafa am boo xam ne xamante ni bi pour. dem ñu dem élection la. donc mhm. moment bii nag dafa soxla jàmm moo tax certainement moo obligé te loolu moom Macky 2012 rafetlu rafetlu na ko te it vraiment defar gouvernement yooyu moom c'est sa prérogative moom moo xam moom la Sénégal yi fal moom mooy rendre compte bu ëllëgee. dëgg la jàmm la nit ñi bëgg waaye nag euh, gis nañ ne alliés yi dafa mel ni dañ leen euh, dañ leen di gën di beddi. waaw xam nga euh, man day du ma wax loolu parce que bi ñu ëpp ci ñun. nekk premier wax dëgg yàlla am na ay responsabilités yu mu leen leen jox. Mhm. bon ku ne mën nga xeeb ko mën nga bañ a xeeb am na responsabilité yu mu leen mhm. li tax ñu ànd ak moom c'est surtout pour defar defar réew mi nag mooy defar ay yoon defar ay école defar ay tali ay pont fexe réew am jàmm yooyu. Mhm. tant mi ngi ci loolu te moo ëpp solo. mooy ñun ñi ngi ànd at moom waaye nag boo bëggee euh, kii nu muy defaluma lii wala defaluma laa euh, bon day mel ni ba ngay moom mu defal la moo tax donc euh, dañ koy bàyyi ak euh, xelam bàyyi ko ak jëfam. Mhm. li wóor donc euh, moom ñu ngi déggante ak moom bu amee bu ñu amee aussi daa ñu xaar ba gis ko ko ñu wax ko mais tant que daal dañ ci yoon defar léegi. Mhm. ba wax ci mbëkk mi monsieur Diagne dégg nañ la ci yow mi sax ci rapport OIM bi bi xayma cent quarante morts yow mu mel ni ànduloo ak chiffre yooyu la lu waral li ni mel. kon xam nga kii wàllu wàllu chiffre. Mm-hmm. wala jox ay xayma dafa war a tegu ci ci dara te boo joxee chiffre te amoo euh, base légale ba ko teg day am problème que mbënd mi. Mm-hmm. am na bateau yoo xamante ni dem Casamance chaque jour yooyu mën nañoo xam diw moo ci dugg ak diw ak diw. Mm-hmm. donc su liste bi mais mbënd mi ñoom xam nga dañuy laqatu di ko waxante ci ci suuf ba jël gaal gi. mais gaal googu nag. boo fekkente ne bii xamoo kat ñoo ci duggoon xam nga ñaata la ñu mais mënoo wax ni cent quarante wala téeméer la wala téeméer juróom fukk la. Mhm. parce que du koor yooyu ñuy reproché donc loolu maanaam dafa baax parce que mën nga wax cent quarante fekk fekk ëpp na ko wala yées na ko. Mhm. man foofu laay foofu laay waxee parce que tamit bu fekkente ne amoo boo xam ne ñu ji ñëw mais pour def ko il faut que def étude bu sérieuse xam parents yi dem seeti parents yi xool kan la doomam dem kan la doomam dem te la doomam jël si su boobaa nag mën a engagé ci ay ay chiffres mais sinon day nekk rek spéculation ku nekk wax loolu neex. kon daal jàngat googu nga def tamit ci euh, rapport ONG Alam Afon bi bi wax tamit. quatre cent quarante ñoo faatu ci diiru benn semaine ci mbëkk mi. mais absolument mais absolument moi je mën na ko ëpp ko mën na ko yées. en tout daal ku ciy def ay chiffres. nga basé ci équipe bu sérieuse boo xam ne da ngay dem ci famille yi nga laajte ku teye kan la demoon ci ban gàll bu gën kan moo organisé ak yooyu mais boo ko defee da ay chiffres comme ça kenn du xam yow yow chiffres yi fan fan ko teg ak fan jii ndax du état moo war a ubbi l'enquête ci mbir mi su ko defee nit ñi xam ñan ñoo faatu carrément ci mbëkk mi jamono ji nga xam ne ñu ngi koy gën di dégg. état moom bu na bu na kii la ci saxal dal loolu da koy def. parce que lu mel nii ay sénégalais des ci géej gi mhm. su amee fa lu mu war a def yëpp taxawaay yi ñu war a taxawaay dina fa dem def ak équipe mhm. xool famille yi waxtaan ak ñoom recensé leen ba xam kan moo kan dem dem dellusiwul koy def mhm. nga foog ne euh, lan mooy solution bi euh, ci mbir mi solution daal li ci def mooy sensibilisation d'abord waxtaan ak parents yi ñu bañ di teg pression xale yi parce que da ngay sa doom mu nekk fii nekk nappkat xëy na bokkul trop nga di ko non yow kat kii sa morom la demoon na Europe ci gaal bi dugg ba mu demee ni tabax na yaayam eh, immeuble yow tam nga def loolu su ko defee ngeen tege ay natt wala moom la mu la ko néew mu def ko ci ci loolu su parents yi aussi ñu waxtaan ak ñoom bu baax. Mhm. Eh, ci ci ci loolu. gouvernement bi aussi góorgóorlu ba eh, programme yi nga xamante ni bii yëpp dañ koo jagal xale yi. Mhm. mais mu góorgóorlu ci. ba ñu am liggéey am liggéey mu liggéey boo xam ne aussi dañ ci mën a euh, réaliser lu lu am solo. à mhm. quoi une fois aussi xale yi gëmloo xale yi nii réew mi incha allah ci kanam tuuti exploité pétrole am possibilité yi dina am et que boo nekkee aussi ci àdduna dina am moment yoo xamante ne dafay difficile yàlla moom may kenn àdduna boo xam dafa neex consommer dafa moment yoo xam dafay difficile mooy moment bi nga wala moment bi nga paree amee amee métier. Mhm. a war bëgg a construire affaire bëgg a takk jabar bëgg a mais dafa nekk moment yoo xam ne leen di accompagner xale yi wala leen yàlla moo bindee nii àdduna amul lenn loo xam ne daf ko yombal te ku góorgóorlu li nga war a góorgóorlu loo bëgg def Sénégal incha allah ko fi def te du jar ngay xar ngay xaru wala nga Mhm. Mouhamadou Moustapha Diagne ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi may fàttali ne ñoo ngi doon dalal directeur de la formation et de la communication ca ministère de l'éducation nationale.